nga ne da nga am yitte pour saafara jàngoro askan wi yow fu ñuy fekk kuy violence yow la fu ñuy fekk kuy saaga yow la fu ñuy fekk kuy xaste yow la fu ñuy fekk kuy jël alalu jàmbur yow la mais kooku warul def politique kooku warul dugg politique kooku dafa toll ci ñu yar ko mënoo tollu nag ci ñu ja ñu war laa jàngal nga dem di jàngale c'est pas possible loolu moo indi jafe-jafe bi te loolu dinaa ci dellusiwaat siwaat l'obligation que les formations politiques yi nga xamante ni moom la ñu am pour gën a tàggat gën a yar ñi nga xamante ni ñooy ñëw di bokk ci ñoom ci politique ñuy ñu bañ leen a yar ci haine bañ nit ñu bañ leen a yar ci bañ koo wuuteel xalaat ñu bañ leen a yar ci wax safaan ñu bañ leen a yar ci di ci di wax naka noonu kilifa yi ñu bañ leen a yar ci xotti worma ak xotti li nga xamante ni moom la ñu am bokk ko muy réew mi nga xamante ni mënuñu ko séddoo réew mi amul titre foncier réew mi amul sens interdit kenn benn woy politique amu fi titre foncier amul titre foncier sud amul titre foncier nord Ziguinchor du titre foncier benn woy politique Podor ak Matam ak Bakel du titre foncier Sénégal démocratie bu am solo la Sénégal démocratie bu ñuy doxal la pluralisme médiatique pluralisme politique lu mënta ñàkk ci réew mi boroom xam-xam bi dafa wax ne donte li ngay wax d'accorduma ci dinaa xeex ba nga mën koo wax doonte li ngay wax ne waxoon naa ci benn ndaje ne ragaluma ku ma wuuteel xalaat li may ragal mooy ku ñàkk teggin ragaluma ku ma wuuteel xalaat li may ragal mooy ku ñàkk teggin loolu rek lay ragal ku ñàkk teggin te su ma sañoon jeunesse sénégalaise yàlla xam na ne Sénégal ci yéen la yaakaar pour génn ci guuta bi te jeunesse boobu sonn na jeunesse boobu bakkanam daanu na ba tàyyi jeunesse boobu deretam tuuru na ba tàyyi ndaw ñooñu tey jii sàmm seen ngor ak seen seen dignité seen diine jaral na leen lu ne waaye jamono bu ci nekk rek ñu fekk benn politicien boo xamante ni ñàkk solo lool di ko jël di ko jëfandikoo loolu nag laa bañ loolu laay bañal jeunesse su Sénégal ngal la bu leen nangu kenn instrumentaliser leen ngal la bu leen nangu kenn manipuler leen ngal la bu leen nangu kenn jëfandikoo leen parce que ku leen di jëfandikoo du ngeen ci gis rakkam du ngeen ci gis doomam du ngeen ci gis jarbaatam du ngeen ci gis jarbaatam du ngeen ci gis doomam du ngeen ci gis rakkam du ngeen ci gis ay soxnaam donc doomu jàmbur yi lañuy jël te Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa am lu mu waxoon dafa waxoon ne àdduna ak li ci biiram àdduna ak li ci biiram jiite ko jarul benn bakkan rot loolu nag dama koy réitérer fii bakkan ñiy wax ñëpp ñi bëgg yëpp bakkan rot ñoom seen bos dañuy fexe ba mucc benn bakkan bu rot dafa rëy loolu moo tax yonent bi salaatu wa salaam di wax ne soo rayee benn nit dafa mel ni rëy nga humanité te loolu lay rappelé waat la dignité humaine ñu fonk doomu aadama fonk ak ak yelleefu doomu aadama damay wax ne politique espace la boo xam dañ cee war a yëkkati ko kenn waru cee toroxal te léegi lan la ñu gis ci relation politique yi muy ñi jiite réew mi boo jiitee réew jàpp ne pouvoir bi nga am danga nga cee war a not askan bi jàpp ne da nga war a toroxal opposant bi jàpp ne da nga war a humilier opposant bi ñaata nit la ñu fi gis ñu humilier leen depuis 1960 defuñu dara lu dul wuute xalaat ak ki yor wala ñu ne ko ah ni nga yore baaxul de waaye keroog maa ngi koy fàttali te loolu mooy sama poñ bi nga xamante ni moom moo ci topp il faut que maa ngi ñaan ñu wax sénégalais yépp di ci jiital sunu kilifa diine yi di ñaan sénégalais fu mu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan ñi nga xamante ni ñoo ànd tey ji ak président Macky Sall ngalla nañu ko dimbali mu sàmmoonte ak kàddoom ca la mu bind ca téeréem boobu tudd conviction républicaine dëppoo loolu ak constitution bii nga xamante ni moom moo ko bindulu mooy mu renoncer à un troisième mandat a une troisième candidature Macky Sall yow ak ñi nga àndal maa ngi ñaan kilifa diine yëpp ñu jàpp ci dimbali ko mu Sénégal dafa amoon lu jiitu Macky Sall di am Sénégal day wëy di am bu fi Macky Sall nekkatul kon troisième candidature bi maa ngi ñaan sénégalais yi ñu mobiliser wu dégtal ko ci noppam sensibiliser toutes les forces vives ngir président Macky Sall tel maa koy ñaan tey jii ci 31 décembre bi mu renoncer définitivement à une troisième candidature parce que loolu dina dalal xel yi loolu dina dalal xol yi te loolu dina ko permettre mu jëlaat turu Sénégal daru Sénégal gën a tee rafet gën a tee kawe mu am une sortie honorable Sénégal continuer di wëy moom mu continuer di dund dundam parce que Sénégal dafay continuer ñun ñi ñëpp dinañ fi jóge Sénégal di wéy di fi des kon j'invite le président Macky Sall à renoncer à une troisième candidature jublu ci li nga xamante ni moom mooy année bii nga xamante ni moom mooy 2023 engagé ci li nga xamante ni moom mooy réforme en intelligence avec le Parlement les réformes majeures yi nga xamante ni dafay am solo pour l'avenir du pays nga xam Sénégal dafay nekk un pays gazier un pays pétrolier mu garantir la stabilité mu organiser élection yoo xamante ni du ci bokk bàyyi nit ñi jongante te ñi nga xamante ni te ñi nga xamante ni te nga xamante ni ñoom ñooy wuti te ñi nga xamante ni ñoom ñooy wuti wala ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy wuti ñu xam ne encore une fois Sénégal promesse de paix la et de stabilité sociale loolu bu ñu ko fàtte bu ñu ko fàtte bu ñu kenn gëmloo ne jël nguur dafay ajowoo ay bakkan tëdd ma ci rendre hommage la président Abdoulaye Wade dafa waxoon ne du ma marché mukk ci ay cadavre pour accédé au palais te am na ay jamono jekk woon na ko de am na ay jamono mënoon na ko de waaye dana du ma dox mukk ci ay cadavre pour dugg palais donc intelligence boobu loolu kiy jiite daf ko war a am kiy jiite xolam da dafa xen dafa war a jeex ci xolam bëgg nguur tamit sa xol warta fees dell ak xen képp kuy jiite it sa xol warul fees dell ak xen bañante bi am léegi ci espace politique ëpp na fexeelante bi ëpp na rayante bi ëpp na depuis 40 ans sunu sunu morom yi dee lan la leen jëriñ lan la jëriñ réew mi lan la jëriñ réew mi lan la jëriñ réew mi loolu jàpp nañ ne c'est inadmissible et ça ne peut pas prospérer te mënatul woy donc di wax ne le mouvement les serviteurs dinañ ci taxaw taxaw bu mat sëkk ngir politique duñu soppi waaye ñun ñoo koy soppi mooy soppi président Abdoulaye Wade bi mu waxoon en 1974 li nga xamante ni moom la Maulana Cheikh Ibrahima Niass waxoon mu ne fépp fu ma dem képp su ma noppee ci sama njaboot fu ñu dem dañuy soppiwaate waaye kenn du leen soppi ah, te amaat naa fierté keroog bi ma demee Médine ndax li ma tudd moom Cheikh Maulana Cheikh ma Niass sama xel dem ci keroog bi ma demee Médine dama dem rencontrer les étudiants yi nekk dans la plus grande université de Médine les étudiants sénégalais ma leen di nuyu bu baax bi ma bi ma leen dajee bi ma dajeeg ñoom ñuy waxtaan ñu ne ma est-ce que xam nga ne université bii bu amee ci xalaatu Maulana Cheikh Ibrahima Niass la jógee université bu nekk Médine ca Makka kon nous avons de quoi être fiers waaw nous avons de quoi être d'appartenir à ce grand peuple qui est le Sénégal nañu moytu ñu ñuy loo suñu réew naan lii du réew lii nañ ko jaay ku ne jël sa wàll ak ku ne nañ def nangam loolu dafay indi ce qu'on appelle la détestation de soi